le 31 mai 2020 nous avons arrêté le 31 mai 2020 nous avons arrêté Nous avons nyar ñaar téeméeri nit ak ñaar ak téeméer ak fuk ak ben yu bindu personnes Nous avons arrêté Nous avons aussi

téléphone wala ñu am ordinateur wala mu am ku leen ko defal waaye am na ñoo xam ni xëy na loolu mën naa jafe ci ñoom ñu ne kon nañ fi def benn centre d'appel pour koo koo xam ni bindu nga am na loo xam ne leerul ci yow wala la nga bind jotoo réponse wala daal am na lu la doy lu mën ci nekk loo bëgg a laajte dañ fi def benn centre d'appel président ne ñu nag centre d'appel baax na Vous dañu war dimbali Sénégalais Sénégal, di ba ñu bañ inutilement ñu ñu ndigal dañuy ba kuy téléphoner communication nationale bari ngay si masalan boo en France en Belgique ngay téléphoner Sénégal doo fay communication internationale communication comme bu en France différence bi état du Sénégal moo koy gàddu xam ni ñu ngi xaar Sonatel mi ngi dajal lool parce que Sonatel mo mën organiser lool dinañu jox facture bi té du yak le 22 juillet nous avons arrêté centre d'appel bi biñ koy arrêté am nañu 18 633 appels maanaam fukki junni ak juroom ñett ak juroom ak juroom juróom-benn téeméer ak fanweer ak ñett ci appel ñoo xam ni woote nañu ci ministère bi da ci amoon ay opératrice ak yu opérateur yoo xam ni boo woo wootee ñoom ngay waxal ñu jox la renseignement yi nga bëgg di ko def aussi ci ay làkk yu bari yu am biir Sénégal fii wolof séeréer tukuleur joola euh, amoon nañ ci làkk yu bari defe naa juróom ba juróom-benn ñoo xamante ni làkk boo ci wax rek ci biir Sénégal amoon ñu nekk fii yoo xam ne dinañ la tontu alal ji nag bi muy ñëw ñu def ñetti phase ndax bu ngeen di fàttaliku dañoo amoon phase boo xam ne yëf yi dafa taroon lool maanaam moo doon mois de mars avril boobu xëy na feebar bi bareegul woon senegal dëgg la mais ñun ñëpp jaaxle woon nañu adduna bi yëpp tëju woon na te.

ku feebar dimbali leen ko ku ci gaañule dimbalu leen ko sénégalais boo xam da nga dem bitim réew ndax boobu ñu ngi doog a aéroport yi nekk ci ay jafe-jafe dimbali leen ko loolu aussi mooy dina ci ñett ñooñu cible bobu la ñu parce que bobu, ñu ngi woon ci phase d'urgence nous dimbali 1358 personnes maanaam junni nit ak ñaar ak train de Nous aussi détail bi la leen ko mi ngi étudiants yi ci jamono joju amono ñu aussi étudiants bourse seen mbokk euh, aide. Nous avons une situation d'urgence donc nous avons des millions de ñu Nous Nous la a qui ak ñi nga xam ni Nous avons mbokk Nous avons bi Nous avons fait une deuxième phase Nous avons fait première phase pour nous dimbali en urgence deuxième phase nous avons ci milliards Nous avons bobu nag biñ koy fekk nañu am suñu base de données ngi ñi bindu ñu ne ñu ñu leen légui da ngeen ci jéem dimbali ñi nga xamni ci ay jafé jafé parce que bobu nous bi taxaw na ñi ñi ñu ak yu yu mel nonu ñu xol lu mais nak lepp nañ ko transparence parce que li ñu waxon suñu ambassade yi ku ngeen di fay na fekk mu bindu ba nek ci ki bi nek ci base de données bi motax tax euh, compte rendu yi yeex parce que ñom fi nek ñu ngi liggéey ku ci nek yaa ngi wax diw fay naa ko moo inscrire na bés nangam ci compte numéro nangam pour mu leer inshallah, xamante ni dinañ ko mëna mettre à votre disposition mo am une troisième phase aussi toll ci juróomi milliards tay ji bu ñu xaymaa lépp

il faut que nous voyons le code, nous avons fait des factures qui téléphone nous, qui ont voté, nous avons fait des choses, nous avons centre d'appel, tout ça, nous avons fait des choses, nous situation bi fait des Globalement, si nous avons fait 125 000 personnes, 0,56, 125 000 personnes, c'est téeméeri junni nit yo xamni fay nañ la am lu tek fay nañ len ñom ñep amna ay poste yu déssé touti ndax amna ño xamni bindu nañu yonne nañu xaliss pour ñu fay len mais bi ñu woowee téléphone jotatuñ len c'est un exemple que je donne wala ñëwaguñu bu boba aussi ambassade yi du ñu fay motax ci sama bi may wax léegi def discours français légui mën na

ñu bari ci ñoom Italie ñii Espagne wala Belgique wala même France ñu avons aéroport yi ñu tout comme ay sénégalais yoo xam dañoo tukki woon wala dafa am ci lu ñu nekkoon bitim réew war état bi ko aussi dégg ngeen ci ay yu doon mais ci yoon rek ñi nga xam ni noonu la ko président santaane ndax li mu bëggoon mooy na ci askan bi gis boppam donc donte doon na ay am ay pression yoo xam ni ñu ngi ko doon si biir mais li ñuy yitteeloo nag mooy feuille de route bi nga xam ni président wax na nañ ko topp ñu topp ko ci na nga xam ni noonu la war a amee douze mille personnes la ñu delloo muy fukki junneeg ñaar ñoo xam ne dimbali nañ leen ñu nekkoon Sénégal fii mën a dellu euh, di mas nekkoon bitim réew mën a ñibbi si fii ci Sénégal li ci ëpp nag ci Afrique fii la mooy ñi nga xam ne ñoon bloqué woon surtout ci réew yi ñu wër dégg ngeen fii ñu nekkoon Mauritanie coow li ñu amoon ñi nga xam ne ñu jógoon Maroc tey ñu la dañ leen bloqué frontière Maroc ak Mauritanie après ñu ne leen ñëw nañu dugg nañu ndax réew yi même ci biir réew yi bu ngeen xoolee diggante région ak région dañ ko tëjoon donc bo amé compatriote bu nek euh, Maroc war a ñëw Sénégal non seulement foog nga jàppale ko ci biir Maroc bu mu mën a ba frontière mais bu yexé ba frontière bi même biir Mauritanie bu fa duggé foog nga mën ko amna ay jamono yoo xam ne région ak région il fallait que ñu intervenir en tant que ministère pour jappalé leen ba ñu mëna a fi mu am ño xamni ci dañu dañoo fi tollu ci juroomi junni nit amont fi liguey nek li bitim Sénégal pour des raisons diverses Nous dem ñooñu aussi ñu dimbali leen ñu dellu ba nga fukki vol ak juroom organisé à partir du Sénégal pour ñoo xamanteni war tireo. dellu ci rew vol aussi def nañ ci subvention dégg ngeen histoire bi ñu dem Italie billet non seulement nous avons prix mais billet bu pris 200 euros pour nous jox 200 euros toll 125 000. Euh,